ayca na ñu dem xooli Assane Assane Bongo ñu dem xooli ko foofu nga xam ne mooy ca Médina ca sabar bu neex sabar bu fàtt taraj Assane buy nuyoo tey bëgg naa ñëpp seetaan ko Assane ak nuyoom rek c'est vraiment et vraiment catastrophiquement spécial Assane salaamaaleykum. waa macha allah fa tubaarikàlla tey ñu ngi fan. Médina ñu ngi fan. laa ilaaha illallaah tabarkalla ànd ci xale yi xew ci jamono xale yi yëngal jamono nekk ci Medina di tëgg lu mucc ayib oh, aba kenn demul bala waaw laaw la cat yow loo bokkul baaxul xale yi nee nañ yeewa kon tabarkalla réew mi nee nañ yeewa kon aba yeewa <laughs> ñu ànd ak xale yi daal di xool li xale yi indi <laughs> li xale yi sàjji tey lay mel oo tufe jaar ndaw bari dangar aujourd'hui aujourd'hui c'est catastrophe c'est excellence ordinaire kenn du Baro honorable siyaar na dellu siyaar waral sa teewaay ci bés bi ak tey samedi bi nga bàyyi sa yitte yëpp teew ci bésu xale yi balaa may yëkkati ay kàddu danga may may ma nuyu Aba nga xam ne ñoo bokk koñ ci Ouest Foire Aba maa ngi lay ziar maa ngi lay dellu ziar parce que comme ni nga ko waxee ay parlementaire lañ yàlla dafa def ñun ñoo représenter le peuple à l'Assemblée nationale mhm. ba tax na suñuy teewaay population bi da koy soxla ci ak lu mënti doon nag tey nag xale yi Médina ñoo ñu invité woon jaarale ko ci sunu frère sunu xarit sunu camarade de parti Amadou Sow Amadou Sow nekk xale bu jàmbaare fii ci Médina waaye xale bu am avenir biir parti socialiste ñu bokk ak moom parti bi nag am ci moom yaakaar tey buñ ko paree ne bés bi ah. yoon la ñu ñëw ay Abdou Diouf tey dañoo ñëw dooleel si suñu xarit mm. dooleel si suñu càmmiñ mm. jëlaat waa Médina rek delloo leen cër bi mm. lii day wone ni am na cër bu am solo fii maa ngi fay nuyu monsieur le maire xale yëpp bootu tey ci gannaawam monsieur Bamba Fall kenn du moom ci man maa ngi lay nuyu tey dañoo ñëw pour xam en réalité le 26 juin Abassio mooy Dakar MDR rek la théâtre di nga bokk monsieur le maire <laughs> doon benn kaw ree bu ñu feccee bay daaneel ki yor bi déglu leen ki yor batterie bi. ah Amadou Sow <laughs> eh, maa ngi ay waay sabar neex na waay. maa ngi delloo ziar ay bëgg naa sabar waay tànn biir. mais gis naa sa délégation délégation bu bari doole nga def. ana lu waral sa teewaay ci bis bi tey tànn biir. waaw bis bi li waral sama teewaay xale yi dañ ma tànn def ma seen parrain. ci tànn biir ngir seen journée d' intégration journée d' bi nag liñ ci jublu. <laughs> mooy fexe mooy wu tànn biir bi de la république. que xale yi soxla nañ les yaa ngi def kii ma bëgg yow faamu Médina soxla nañ ko plus de 300 millions buñ ko dugalee Médina Médina loolu doyu leen ñi ngi lancer un appel mm-hmm. à monsieur le président de la République Macky Sall mu jàppale ndawu Médina mu jàppale ndawu Dakar exceptionnel la ñoo ngi nuyu ñëpp rawatina Aba chaque fois dañ koy suivre Amadou nag sama xarit la du politique moo ñu boole sama xarit bu baax la xol bu yaatu ma am bés bii ñu wax ma ko wax ko mu nangu parrain bi pour jàppale u Médina lépp lu mu si bëgg moom moo xam yàlla na ko yàlla defal mais maa ngi leen di wax TFM mooy sunu télé mooy sunu lépp mooy sunu àdduna Youssou Ndour ñoo ngi lay bégee nee naa la jàmbaar looy wax Dakar na door pli yaa ngi seetaan Dakar na door pli maa ngi seetaan Dakar na door pli loolu mënuñu ko wax lu dul bëggee man sama doom bu commencé lu nelaw parce que fan su Aba la Aba ñoo ngi lay bëggee ñoo ngi lay sant. waaye Fall bëggee waaye bëggee bëggee. ayca Assane maa ngi ñëwaat léegi ca Medina.